demam nga umpuna mindéef te um na boppub kuy mindéef kudul malaaka ya ko wuuf ak yàlla ak ñamu ko wax yoneen ba ak ënglu badar yori mbiram di ko defar moo tax xamee su lu wér demiinu yoneen la ko jox la dala njurbal ba këram malaaka ya sappe ni gorom di ko bijjanti di gërëm te di ko sabbaal di ko jox way deeye jokk woon fa moom te nekk bar sàq bi liñ ci e, wumb nag bari na lool objectif yi bari na lool ci suñ xalaatagoon liñ xalaatuñ comité bi liñ ci réunion yi def ak waxtaan bu pare ba am ñu tëral waaye nag xalaat yu yu yu yu kii rek yuñ yuñ tàmbalee rek waaye ndax xalaat yi koy jëmmal yëpp nag bañ mën a am courage na di ko def mooy yéen lu ngeen nit yi wax ba pare loolu moo taxoon tey jii ñu jóg ñëw ci yow eh, ci ndigal sëñ Ahmadul Maxtaar eh, buñ paree nag bàyyi la yow nga wax na noo ko bëggee ak noo ko xalaatee waaw ah, yaakaar naa loolu daal mooy objectif bi ak li nu fi li nu fi indi eh, danaa jox bas ñaar nag moom leeralal la biñ dalee waxtaan ak lépp liñ liñ liñ tëralagun niñ ko bëgg a defee yu mel noonu daal jërëjëf Mbacke. solo si rek moo di yëggu sëñ bi yëg ne bi sëñ bi ñibbisee ci dëkkam bi mu gënoon a bëgg te suñ boroom natt ko ba dëkku fii ni mu fi bëggoon a dëkke ak ñibbiseem fii nag doonoon loo xam ne yàgg na koo waajal. yàggoon na ko it ni sër dénkaane woon na ko itam ndax ba mu nekkee ci tukki ba sax daana wax ne ilaahi ilaa tuuba ya xut nii wasalliman wa jut bimtinaanin sàmm wal tuumini tirba waxaat ne it ne ijaal rujuwaay ilaa xaw mi saadatana fi naa yow ma jamil xalqi niiraana waxaat ne it ne yassir rujuwaay li tuuba wax mi nii waxi nii adal wara wal tayib bal tutib lii sama iskaana yooyu yëpp day wane rek ne sëñ bi ku bëggoon a dëkk ci dëkk bi la ku fi bëggoon a dellu la dellusi si gi itam nag bu ñu seetee ci at yi nga xam ne ci la sëñ bi daan bind ak weer yi nga xam ne ci la daan bind muy weeri xamariye yi ci atum gàddaay gi buñ ko seetee mu ngi fi jóge woon ci wam sa sin te ci màggal gi ñu jëm mooy tolloog wam ta sin muy téeméeri at yu mat loolu nag doon loo xam ne ginnaaw bu sëñ bi liggéeyee liggéeyam bu rëy bi mu liggéey dafay bàyyi njaboot bàyyi fi itam ay sumb ak i naal bàyyee ko njaboot gi ñu bëgg nag sëñ bi am xamumataan nag gis ne jaadu nañu wone sëñ bi li mu liggéey ak ñi mu defar bi mu fi jógee ñooñu taxawuñ yaafu suñ ba liggéey nañ ci téeméeri at bi ci domaine yu bari yu wuute yoo xam ne bu ci nekk sëñ bi daa wax ne nañ ko fësal muy ci wàllu xam-xam muy ci wàllu économie muy ci wàllu social muy ci wàllu environnement ak domaine yu baree baree bari yu wute ak ak dox gi waa këram dox ci benn li jullit ñi li la ci Cheikh Mamadou Moussa ba ci sëñ Mountakha mi ku ci nekk boo fi bi nga ñëwee ak ñi nga xam ne sax duñu ay xalifa kenn ku nekk def na kemtalaayal kàttanam ngir yi ñu tudd lenn lu nekk mu def ca loo xam ne lu lu ñu mën a wane la mu gis nag ne loolu dana xat ci bisu màggal gi rek kon nañ ko tàmbalee ndakaaru ca Masalik ci le treize wala le douze ubbee ko fa def fa ay waxtaan ci sëriñ bi ak xam-xam gannaaw gannaaw maanaam euh, maanaam euh, yoonu murit ak xam-xam gannaaw sëriñ bi téeméeri at yi li fi yoonu murit liggéey ci wàllu xam-xam euh, buñ fa jógee itam le quinze ci weer wi ñu jëm muy juillet ba tey ñu dem Louga moom waxtaan fa ci yoonu murit bi fi sëñ bi jógee léegi téeméeri at yi li ñu fi def ci benn la jullit ñi buñ fa jógee itam ñu tëjee ko njaareem ci ñaar fukki fan ci mois de juillet waxtaan fa ci xutbatu wam sa maanaam denkaane bi sëñ bi mujj dénkaane ak fukki at ak juróom yi mu nekk njaareem ak waaj gañ ko waajal indil ko ndax loolu tamit daa war a doon loo xam ne lu ñu lu ñu gën a fésal la ci ñëw sëñ bi ci ci dëkk bi loolu nag sëñ bi waxoon ne nañu ñëw gannaaw bu mu ci amee ndigalul sëriñ Muntaxa ndax dane woon du yëkkati dara te demul ci sëriñ bi ba wax ko dem na ci sëriñ bi ba wax ko yónnee na fa sëriñ bi xamal na ko ne loolu fas na ko yéene ànd ànd ak moom loolu moo taxoon ñu ñëw fi ngir leeral la ne fii lañ ci toll commission yi nga xam ne itam mooy taxawu liggéey bi ci wàllu communication euh, sëriñ bi ni ñu ko waxee sëriñ Cheikh Aziz mii moom lañ jiital ci coordination bi muy coordonné lépp loo xam ne moo jëm ci liggéey bi ñu ànd ko itam nag ak boroom xam-xam yoon wi yëpp rek nag maanaam sëñ Bakk Abdourahmane ñoom ak sëñ ñëpp daal ñi nga xam ne gis nañ ne man man nañ mën nañoo tax li ñu li sëriñ bi bëgg am ndax lu murid yëpp bokk la ñooñ ñëpp sëñ bi dafa wax ne nañ leen di boole ci liggéey bi ba ñoom ñëpp bokk nañ ci ñii ñu ngi ci commission communication ñii ñu ngi ci commission euh, culturelle ñii ñu ngi ci commission relation kon loolu mooy li nga xam ne ci tënk mooy li sëriñ bi waxoon ne buñ ñëwee nañ ko leeral bu ko defee itam déglu leen ci ci xalaat yi ngeen ci am ak euh, ni ngeen jàpp ne suñ ko ne defee euh, dana gën a baax ndax lépp rek wane sëñ bi la waaye wane njabootam ci ne bi sëñ bi liggéeyee lim liggéey te bàyyi leen fii itam taxaw di suñu gannaaw ndax lu ci nekk léggéey nañ ci loo xam ne mënees na ko wane wan àdduna xamal leen ni lii la ci ak njabootam def loolu nag du aju ci Cheikh Moustapha rek waaye sëriñ Fallou ak sëriñ Abdoul Ahad ak sëriñ Abdoul Khadir ak sëriñ Saliou ak Cheikh Mahamadul Amin ak sëñ Sidi Mokhtar ak ba ci sëñ Muntaxa yi ak yeneen njaboot yi nga xam ne yëpp ku ci nekk am na loo participer ci liggéeyu sëñ bi ci wàllu xam-xam wala wàllu économie lu ci nekk ñu wane ko loolu daal moo doon moo doon ñoo ngi gërëm baax asalaamaaleykum di tàmbalee siyaar bi nag ci Cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xam ne moo fi Serigne Touba di ko ñaan mu yàgg fi loolu te ànd gër ba mot li mboolem naal yi nga xam ne am na ko ci liggéey Serigne Touba te yàlla def suñ boom lu ne ak waxtoo jot ndax ñoom ñaar ñi fi nekk tey di Cheikh Mouhamadou Mountakha nekkal Serigne Touba mm. ak Serigne Ahmadou Mokhtar yàlla def ab diggante seen diggante ñoom ñaar mm. loo xam ne xam naa ci lu maa ngi fàttaliku bi fi Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké di bàyyi ko mm. euh, Cheikh Mouhamadou Mountakha mi te boo si Serigne Sidi Mokhtar doo doon xarit Serigne Touba mu ne waat mu seet Serigne Ahmadou Mokhtar ay xalaat yu amoon ci yoon wi ne daf koy waxee am na ci loo xam ne sax sama mbir ca la kon dama ko kon seen diggante du tey hmm. si ma itam jox ko cër lool jox ko hmm. def ko kilifa hmm. sëriñ bi fonk ko lool ndax seen diggante diggante Cheikh Maodo Moustapha ak Cheikh Maodo Bachir sëriñ tu leen boole woon jël seen ñaari mbubb yi euh, takk ko laxas ko ne ko boole naa leen kon ànd bu lu yàgg la waaye leen yóbbante sëriñ bi ak cant ak rek si xaar bu rëy bi ndax lii dëgg la suñu Ahmad day jëwriñ ji waaye yëfi yoon yëpp la mm-hmm. li ci defee yoon muur yëpp la ko defal mm-hmm. xam gi mu noonu moo tax ndax moom du yëkkati dara te ci suñ bi ndigal mm-hmm. lii nag rawati ci ndax fekkoon na lu kiimaane am ci ndax ci màggal gi xalaatoon nañ jëmba ci lu mel noonu bi ma déggee lii nag ma kon daanaka lañ ci waroon def atëb dañu bàyyi yéen lii ngeen def yóbbaale ko ndax ñoo ñoo jege te ndax euh, sëriñ bi mm-hmm. bi ñibbisee Touba ba nga mm-hmm. ren la ci téeméeri at mm-hmm. te xarnu ñëpp xam nañ li muy firi inna allaha yabasu li hasihi l umma ala rasi kulli miati sanatin man yujaddidu laha dinaha kon loolu mu gën a firndeel li ñu bari daa wax naan suñ mun taxaa mu jëddil la kon tawfeex la ci lii mu fekkewaat beneen tawfeex feeñaat ci it mooy bis bi ñuy màggal tey mooy ñibbi si sëriñ bi mhm. euh, Cheikh Mamadou Mountakha bi nekkee sëriñ Touba mhm. goo ko fi jëkk fekk mhm. it yéene jure jëm ci am sax mu ne su ko wax ci télé waaye man la ci jëkk wax ne ba noppi teg ma ci teg ca ne ma ci sax ndimbal noonu la ma ko wax sama positif bopp ak sama yëg bopp te gis ngeen ni mu koy dundale bu agsee day bàyyi ko këram ak lu mu xat-xat mhm. ñëw fanaan si ci kër Sëriñ Tuubaa mhm. yi danaa wax naan dañuy day dem jaarim waajale ko fa sax mhm. ba mu koy man ñëw gunge si sëriñ bi kon daanaka mooy lii kon loolu mbir mu am solo moo xam ne mu di fàttaliku la fàttaliku jëmmi sëriñ bi ndax sëriñ bi moom mooy suñ lépp suñ dund gépp sëriñ bi la lépp itam moo ñu ko fàggul doonuñ dara ci suñ bopp dëkk bu toll nii itam ñu xool fi mu toll tey nga xam ne dañ daa wax bu jëkk ne ginnaaw bu capital bi jàllee Touba fépp waaye ren mu tolloog ñee Touba mooy dëkk bi ëpp ci Sénégal te ba fi sëñ bi di ñëw booba modu sa fukk kër ci téeméer at kon loolu rek doy na njàngat lu rëy ñu war see jàngee nag ne ñaanoo Serigne Touba moo tax dëkk bi ak si loolu mm-hmm. loolu kenn def lu moom ci moom mi nga xam ne moo fàggu dëkk bi mm-hmm. ba muy ba muy taalif Matlabul Fawzayni nekkoon ci maarum xat mm-hmm. ñu suñ borom wan ko dëkk bi ni mu war a mel mm-hmm. nga xam ne ba nëgë ni boo jàng Matlabul Fawzayni mm-hmm. da dangay yéeg ne day mel ne nii dëkk bi mel fekk na suñu fàgg ko yàlla def itam nag mu bàyyi fi ay jàmbaar jàmbaar yoo xam ne ndax adduna lu fi sotti rek suñ borom ci loxo doomu aadama la ko jaar la moo tax ci ko jëkk woo tuddee Cheikh Mouhamadou Moustapha mm-hmm. yàlla def bis bi itam mu daa ko def di ko ànd ak njëbaru mm-hmm. taxawal yoon bi itam mm-hmm. loolu xam naa bu ma ak njàmbaaram ak xamam Sëriñ Tuubaa ak ko gëmam Sëriñ Tuubaa ak ko fitam moo tax yoon wi départ ba ak si fii tey lépp ndax sëriñ bi moom xam ngeen ne léppam digg ma boroomam la Sëñ Tuubaa mos a dara mhm. mos a dara suñu son bi daan wax ne mos a batale dara mhm. kon Cheikh Mouhamadou Moustapha mhm. eh, indi gi mu indi sëriñ bi rek te ma téeméer loolu képp ma toon na ñu di fat ñu di ko fàttaliku fàttaliku waale it ba mu ko indi nam jafe woon ndax yéen jànkat yi da ngeen ci delsi ku dem ci archives yi mille neuf cent dix-huit dix bàyyi woon nañ xel lool ne sëriñ bi buñ ko gisatu njaarim ko koy denc a nga gis nga xam ne suñ tubaab kon mhm. ay pexe mënu ci moom dara mhm. ndax loo xam ne tubaab bi def nañ ci ay siif yu bëri bëri mhm. bu ngeen demee dangeen ko gis am na fépp léegi te gis ngeen tawfeex ji suñ borom def bi nga xamee ne suñ bi dem nañ ba xam ne war nañ ko indi tubaab Cheikh Mouhamadou Moussa taxaw ci fitam ak njàmbaarum xelam ba indi ko tubaab bi mu ko indee ci dëkk bi dëkk bi dara niwu fi la tubaab yi doon doon ragal ne mu ñu indee suñ tubaab njaareem noonu lay defit mooy murid ñëpp danañ toxu mm-hmm. Touba nekk seenu capital mu jëm mm-hmm. ñu fàttaliku waale raay bi mm-hmm. ba mu koy tàmbale ndax loolu mooy yoon bi ndax mooy li njëkk def ci yoon ndax jumaa ji raay bi tax mu mën a am condition yi ñu ko ci tegoon ne nañ ko ko may taxañ ko ko fulla jëm ci def yitteem jëm ci def ànd ko njabootu Sëriñ Tuubaa gi ba mu taxaw ba tàmbali jumaa ji noosu njabootu Sëriñ Tuubaa gi noosu si teg yoon ci yoon door mm-hmm. fi bàyyi ko mm-hmm. bañ ñu ko wutuwaat ginnaaw ginnaaw bi ñëpp mm-hmm. tàmbalee ci Cheikh Mamadou ba ci Cheikh Abdoul Ahad ba ci Cheikh Abdoul Khadir ba ci Serigne Saliou ba ci Cheikh Mahmoud Dayin Baara Mbacké ba ci Cheikh Sidi Mokhtar ba ci Cheikh Mahmoud Dayin Baara Cheikh Cheikh Mahmoud Mountakha yàlla fi yàgg te ànd kenn ku ci ne ñu xool li nga xam ne def nga ko ci yoon loolu lu ma di fàttali mhm. ndax dana tax ñi xamutoon xam mhm. dana tax ñi door a jug itam mhm. xam ne yoon wi nii yoon wi ndax yoon wi kat ba sëñ bi ñu bisee mu mosuñoo toog di xaar kenn luñ nekk dañ cee nekk rek ku ñëw fekk si lañ ca loolu nag yoon wi bu demee ba agsi fii tey ba amee nii doole yéen waruñoo fàtte cosaanu lay yoon wi te mooy xam ne la sëñ Tuubaa digle woon ca bi muy santaane jumaay Tuubaa ne lépp lu ngeen bëggati wala lépp lu ngeen sumbati mhm. rawat na lu mel ne néegu yàlla bi mhm. na ngeen ci góor góor la ngeen man ak la ngeen mënut mhm. te ngeen sukkandiku ci seen bopp te fa ci seen doole yam ngeen dem laxasaay ci eh, an ko ci anam gu sell te fa ci seen kattan yam ngeen toog xaar fa say jaxal la bara suñu kon fàttali googu dana ci baax mooy carrière carrière ndokk yi ñoo xool fañ ko daa jëlee mm-hmm. ay kilomètres di ko yandu seen bopp mm-hmm. di ko indi te dawuñu ko yëg mm-hmm. lépp njàmbaaru murid lay fete ndax ñu bari dañoo fekk lépp sotti rek te xamuñu histoire moo tax lii nekkoon kon dañ ci ñëpp di ci soñ biir réew mi muy dëkk yi ñu ko war a defee mooy Ndakaar googu ñu ko war a ubbee ndax Cheikh Modou Mountakha déggoon naa ci ginnaaw muy wax ne Touba moom mokk na ba noppi liggéey bi ci soow jant la dese mhm. kon lool ci liggéey bi la bokk mhm. mooy taal bi yëpp yëg ko mhm. ànd ko da xam ne yëf Sëñ Tuubaa la di yëfi Daaru Xudoos waaye yëfi yoonu murid la Louga itam noonu xëy na tànn ko ci région yi njaareem nag moom daama di fàttali ndax fa la Sëñ Tuubaa gën a yàgg ci kaw suuf xar baax ju mu def ko fa eh, ay jeexee tamit njaareem nga ko fekk muy kër gum dëkk ak jumaa jum tabax kon njaareem itam lu ma di fàttali la ba foofu ngeen ko daanee mooy xutbatu am sasin mm. xutbatu am sasin boobu lu jamono jaxasoo jaxasoo mm. bu ñu ko jàngatee tom la Sëñ Tuubaa mujj waxi taalibe yi kon doon tàggu ñoom mm. ndax ba mu noppee la la la joxe ndigal ne waxal suñu affaire yi jiite fere kenn gisatu ko kon loolu itam mën naa fàttali ñëpp xam ko xam ne yoon ne Sëñ Tuubaa noppi na ci noonu ñu ñu koy defee ci biir réew mi itam bitim réew comme baaxoo nañ daa ko fa def ñoom tam ñu gën cee góorgóorlu Mm-hmm. na am na ci ñoo xam ne seen tànk jot si wut fii mm-hmm. ndax ñëpp mënuñoo ñëw mm-hmm. ñene fa itam kon ñu def ay waxtaan ak ki fàttali ba nit ñi gën a waat gën a farluwaat gën a xamaat lan mooy nan la ñuy jëriñoo sëñ nan la ñuy sëñ bi nag mooy wane sëñ bi rek te sukkandiku ko jële sëñ eh, bi laa doxoon ne bi ñu def conférence bitim réew ci UNESCO mun leen bu leen sonn ci xam le doomi Sëñ Tuubaa mm-hmm. fexe leen bañ xam le sëñ bi rek mm-hmm. ndax ko xam sëñ bi ku ku gisati nga bokk ci woon dana mm-hmm. waaye ko xamagul sëñ nga bëgg ko wan du sotte kon lii itam yéen màggat gi màggalu Sëriñ Tuubaa la euh, Cheikh Mouhamadou Moussa ko njëkk a woote itam ko njëkk a woote woon ko ñu du ko def ba nga ne kon bisu yoon mu lépp la ko ñu ngi ci soñ ñëpp ñu ñaan ñu àgg ca jàmm te dayee cee ngërëmu Sëriñ Tuubaa mi nga xam moom ngeen moom lañ ci sàkku ñun ñëpp te xam na ko ko ci sàkku itam donc kon ñu ngi leen sant ñu teew ñëpp seen yitteeg seen taxawaay ku ci ne lañ seq yow rek jotaay bi mayoo ko ndax ab appel la moo tax waaye kon ñu ñaanal Cheikh Mouhamadou taxa mu yàgg fi loolu te ànd ak ndax moom kat kilifa la goo xam ne kilifa gu mat kilifa la ndax kilifa goo xam ne dara boppam itteelu ko léppam Sëñ Tuubaa léppam yoon di ñaan suñu Ahmadou Mokhtar mi nga xam moo fi mm-hmm. mu yàgg yiiti yiiti mm-hmm. yàgg topp ci ginnaaw suñ bi mm-hmm. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu damam nga umpuna mindeef te um na boppam kuy mindeef kudul malaaka ya ko wóof ak yàlla ak ña ko wax yoneen ba ak ënglu badar yori mbiram di ko defar moo tax xamee su ca lu la ko jox la dala njurbal ba këram malaaka ya sappe ni gorom di ko bijjanti di gërëm sabbaal di jox way deeye jokk woon fa moom te bar sàkk